waaye amoon naa ko gerte boo xam ne bu bu bu bu bu tamit xasee weesu bu julli. Mhm. balaa ñu toog di déglu rajo. Mhm. damay tëdd sax ma dégg am kuy wax. Mhm. boo xam ne kii miinu ma baat. waaye daal muy wax ma toog ma ne waaw kii ñooñu nit suba nag ma laaj ni ñu ne moom mooy indi rek nga ah, kay. nañu waxee ne ko wóor. sëñ bi tegu tegu ci yoon. foofu laa tàmbalee. waaye li ma la bëgg a wax mooy moom day wax dëgg yàlla ñaanal ko na ndax moom loolu am na kii lañ ko doon wax ku am jom la. ku yàgg doon jàmbaar la. ku mel noonu nag. yëpp kuy doo ko bañ. ba mhm. euh, noppi. Mhm. Euh, mu koo xam ne ci sunuy xam nga ne Touba moom. Mhm. Euh, day dëkk day dëkku kilifteef. te lu mu mënta jiitu gis ay dox yi yoo xam ne moo mhm. xam na ne lii dox yi mhm. yow am am na lu ci gën ci yéeg mhm. waaw c' est Touba ñu ñëw di fa am ñaari fan ñetti fan bëriwul barab nag boo fa dee dem mën fa am benn ñaari fan mën fa am fan yëgoo fa lu la lu la lu la cofeel mu yëgul ak cofeel mënu fa yàgg déedéet déedéet déedéet kon loolu tax na moom mii wóolu nañ mbiram ak sa ak ak cof sama cofeel bopp boo ngeen wax dafa am bis màggal gi gëlee la comme dem naa ko waaw ma ne ah président ak si wul waaw. nga xam loolu yëpp mu ngi nekk sama ndax ku mel nii. waaw. dee ñëw di ci bis yu mel noonu. waaw. ba yàgg am bis bi bis yooyee ñëw gisoo ko. Mhm. faaw nga xalaat loolu loolu nga xam bis bu ne boo amee ñaari fan ñett fan ñeent fan faaw sa xel daw daw yi sax. Mhm. benn bis fii laa toog. di mhm. seetaan ne kii bi. benn benn ma kese xew woowee waaw man di ko seetaan ba yàgg ma gis ku nekk ku koo xam ne gi daal ko ma ne ah kii de président ma mu taxaw ma gis gone yi def jàllaw jàllaw jàllaw xamul ma gis ma loolu nag metti ma loolu <laughs> xam nga bu doon bu fekkonte ne du du du kaset. Mhm. doo ko buur rek dem dem dem lu <laughs> jëndi ko. waaw waaye kaset doo xam ne. waaw de. waaye xamoon nooy def. waaye nag euh, moom. Mhm. waxuma sax ñëw gi par euh, màggal ak mel noonu. Mhm. Euh, loolu rëy na. waaye sa sa moom. li fi ñëw dafa bari. Hmm. te bu ñëwee rek yow lay wax. ah rek lay wax. dañ hmm. hmm. koy ñaanal bu baax. waaw li li muy wax nag mooy. nit ki moom ñaanal ma. moom koo ko wax. mooy li ma lay ñaanloo moomu. ndax moom. boo ñëwee may ba ci nga koy wax. waaye. ñaan boo boo gisee ñi di ko def sax mhm. nit ki day gis ne ki moom yëf moom moom lépp moom yëpp euh, nit ki day gis ne am nga ak moom wala rek mhm. relation boo xam ne bii